rahmatullah wa la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki nag Alioune Sarr mi fi nekkoon di bi na li ba réunion bu njëkk pour le 19 novembre bi nag maanaam wàllum passation de service daal wala réunion ba la ko teree am lenn la maanaam joxantey lenge yi nga xam ne war moo war a am ci diggante Bira Sène ak ki nga xam ne moom mooy Alioune moo amagul ne lii moo tax ba tey daal mbir ya daal di taxaw taxaw amagul yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag ba tey mbir mooma mu ngay continuer lamb ja ak ati mbër yi nga xam ne ñu ngay wax waxi yokk ko yëglikaay bi di sunu lamb day xamal nañu ne ku mel ni baabooy ci atum 2017 la demoon retraite waaye daa mel ni fi mu nii day la mu nar mooy entraîner ndax gis nañ ko ci olympique club mu ngi fay gaañ boppam ci wàllum entraînement la mu bëgg nag mooy bu fekkente ne ca war a wax am na koo xam ne moom ab colonel la ancien colonel bu retraité sax la ñu koy wax Aboubacry Samba moom daal la mu gis mooy ab manager warta mën a yor jikkooy xorondom maanaam di roñ roñuy dem ak roñ roñuy ñëw nan li war a am mooy manager bu ci ne écrit nga war a am benn yore fa ay mbër di leen doxalal waaye tey nga nekk ci mbër mi suba ca mbër mee wala ginnaaw suba écrit bi daa jàpp ne mbir yooyu moom war ta mën a sax demenu ma mel ni ki noonu moom Aboubacry daal wax na lu yaatoo yaatu tey ba ñëw na ci mbirum bureau bi nga xam ne nii moo fi nekkoon bu njëkk ak bi ko remplacé jàpp na daal mbir yi ak ute war na caa am ndax jàpp na ne bureau bii fi ne moom li ñu war a def maanaam ñépp la fi nekkal capitaine ba nag ne na Bira Sène la tudd waaye terewul ku ci ne am nga ci xalaat war nga caa tamit wax joxe ca la nga xam ne nii moom moo di sa xalaat am na keneen koo xam ne daa mel ni la mu wax loole mu ngi koy ku koy dëggalal ndax jàpp na ne moom daal la mu gis wala ka mu jàpp la mu wala boog la mu gis ci Bira Sène moom mooy nit la koo xam ne daal kuy déglu ay nit la ki wax loolu nag moo nekkoon deuxième vice président wu CNC ñu koy wax Émile Wardini moom daal jàpp na ne Bira Sène moom kuy dégloo déglu la lool mooy waxi ka nga xam ne moom moo di Émile ba tey bu nu continuer yëg dem ci yëglikaay bi ba tey rek lañ fay gis nag mooy ñaar ñoo xam ne daal seen ak wujje ci làmb ku ne gis na ko tar na metti na lool muy diggante Modou Lo roi des arènes ak Balla Gaye numéro 2 ancien roi des arènes yëglikaay bi nag fi mu nekk nii dafa am yoon woo xam ne moom lañ bokkati mooy roi ba yor moo di Modou Lo ca parcelle Balla nag la mu bëgg lépp mooy jëlaat roi ba nangu ko teg ko ci ay loxoom moo tax yëglikaay bi daal jàpp na ñaar ñii moom seeni mbir liggante ko dana jafe lool muy Balla Gaye numéro 2 la lion de Guédiawaye Modou Lo le roi des arènes ba ca Parcelles Assainies mu mel ni ki nag ba tey bu nu continuer koo xam ne bëri na ak ñoom ñaari yoon muy Eumeu Sène yëglikaay bi ñëw ne de nee juróom-ñett yoo xam ne wala boog huit ans seen mu mel ni kon daal loola la ko ëmma def moo tax kaay bi daal jàpp na ne seen combat bi di ñëw moom nar naa te metti lool ndax nag fa ñu jaar dafa méttee métti moo tax troisième combat ba moom ku yebu xaar xam ne lu nar a métti lay doon leneen loo xam ne nii moom nar naa métti wala boog ña ko nar a moom teel nañoo wane seen bopp muy ña xam ne nii nag ñoom ñooy daal ab collectif lañ boo xam ne daal ñoom daal défendre lambi simple ji la ñu nar kana ca bopp ba nag moom moo di ab daandong bu ñu demee ci record ñu leen fay fekk bu ñu demee Leewtoo point wala Leewtoo TV ba tey ñu fa ñoom daal la ñu xam ne daal jàpp nañ ne daal ñoom ñi nga xam ne nii daal ñoom ñooy collectif boobu daal la ñu gis mooy Matar ba moom wegu leen joxu leen tamit ab cër te it nag ne nañ dinañ ko defanteeg moom ba mu saf-saf ndax duñ ko may dara màng de ma nga xam ne nag moom la ñu teg seen kanam mu war a yore lambi simple ja buñ demee la ñu jàppale daal muy ñoom ab dandong ak ñoom la gis mooy ki nga xam ne moo di màng daal du leen jiite tey suba waxi noppi ndax nag méritowul di leen jiite kon daal jàpp nañ ne moom kii di màng de moom bu ko xel xalaat tey nem nenañ tamit danañu jàmmaarloog moom ba mu saf sap sap sap duñ ko may dara ndax du leen jiite tey suba waxi noppi bu nu continuer continuer ba tey ci record rëg-rëg moom bureau bu bees ba nga xam ne nii moo fi nekk yore lamb ji teñ teg leen fi bu yàggul daal rëg-rëg moom lam leen di xamal daal ne leen amu ngeen droit def loo xam ne nii maanaam daal lu gën a yées li Alioune Sarr def jàpp na ne kon yéen daal li leen war mooy lépp lu fi Alioune Sarr defoon ngeen fexe ba doubler ko ka wax loola nag mooy rëg-rëg adversaire guy gi moom gis goo gis-gis booba daal la amee ca mbir yi waaye man daal maar loo ci mën a dégg daa mel ni est-ce que saan wa demut moom la des pour man mooy ñu waxtaan est-ce que waxtaan du gën a yomb comme manque de lañ jënk lambi simple ja te ka ko def mooy waa lamb ji wala boog ministre baa ko def est-ce que kon waxtaan du gën wala boog ñu xool nu ñu def ba mbir ya dox ndax fi mu nekk nii mar est-ce que coow tiiraay maa xëccoo ndax dina yóbbu ay mbir fenn fañ ko soxla kon gars yi tee ñoo gën waxtaan rek ndax mbir yi gën a mën a avancer. asalaamaaleykum wa di leen ñaanal jàmm te di ko saaxu ci yéen tey nag ñu ngi ci vendredi 13 novembre 2020 di ñaanal yàlla Sénégal di ko ñaanal àddina bi jàmm yàlla def fi xéewal xam nga musal ñu muccal ñu te di ñu masal comme ni ngeen ko xamee du mën a ñàkk di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan corona bi gën a jeex rek parce tamit gis nañ ne bu dee ci réew tubaab yi jógaat na fa jóg bu métti ba tax ñoom ñu confiné wala ñu duggaat ci ay affaire ñu ngi ñaan yàlla nag mu jeex tàkk xam nga parce que tamit loolu la ñuy loolu mooy li nga xam ne ni dina tax nit ñi xëy na mën a delluwaat ci seen ay activité normale tey nag su ñëwee ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb fan ngay doore mel ni nag maanaam réunion bi waroon am pour le 19 novembre daa mel ni ah li bloqué mbir daal mooy fi mu nekk ni passation de service moo war a am te amagul ci diggante docteur Alioune Sarr jiite woon làmb ak Bira mi nga xam ne moom mooy actuel président bi mel ni kon nag loolu moo ko bloqué loolu nag yaakaar naa warata mën a bloqué pour réunion war a am le 19 novembre monde lamb bi defe naa kon de service bi warta mën a sol eh, kii lu ñu war mën a def la bu ko defee ñoom itam ñu commencé seen liggéey parce que fi nekk nii pour man mbir yi amatul xaarte waa lamb soxla nañu gisaat lamb maanaam dundaat lamb maanaam ñu organiser ñu mën a seetaan lit simple seetaani ko ñu war seetaan lit affaire frappe seetaani ko kon defe naa passation de service boobu daal yaakaar naa ne ah na lu dootul yàgg dina war xam ne daal mu ngi olympique club di waa di entraîner ngir lan ah ne nañ nag dafa mel ni ku décidé dellusiwaat bu fekkente ne yokk nañ affaire yi moom ku ne xam na ne bàyyi ma njoon mu ni kon ah loolu daal su amee ah, ñu seetaan rek xool ba xam ndax mbërwóor yi day dellusiwaat bu fekkee yokk nañ at yi wala nu muy demee waaw nañ yónni yàgg comme ni ma koy faral di waxee ba tey ki nga xam ne mooy Aboubacry Samb moom moom xëy colonel douane la wala boog ancien colonel du moins maa ngi jéegulu ancien colonel la daal Sensé ci benn écrit la war a ne waaye Manane Sène mënut a yor lu mat fukki écrit wala fukki mbër yoo xam ne bokkuñu ay écrit waaw jàpp na ne loolu du yoon moom loolu la gis ah na ci loo xam ne nii pour a xoolaat waaw waras ko mën a a doon itam ah a ak nanga ah tamit du problème bu dee problème tamit war na ko xolaat jéem a xool nu ñu koy lijjante yaa dégg loolu defe naa ne xalaat la boo xam ne moom joxe na ko ka nga xam ne ni moom mooy Émile Wardini nekkoon deuxième vice président wu CNC bi fi jóge moom it xëy na tey di wax ci Bira Sène mi mu jàpp ne daal nit kuy déglu la mel ni kon loolu daal daa mel ni ah bu dee lu am la moom dina gën ndaxit ku jiite ay nit moom war nga leen di déglu waaw di déglu seen ay xelaat di déglu seen ay kàddu pour que la ngay nga gën ko mën a teg ci aw yoon parce que tamit sa xelum bopp rek bu la doyee ci mbir moom yaakaar naa ne boo juumee dina metti waaye ànd ak nit ñi juum moom mën naa a metti kon daal comme moom day déglu loolu moom dina nekk luy gënal waa làmb ndax làmb ku ne xam na ne ah bëri na ay kuréel bëri na ay association te ku ci ne am nga xalaat te kon defe naa ku ci ne war nañ la jox nopp rek di la bàyyi xel di la déglu ci loo xam ne tamit lu lu yokk la mais pas itam di wax loo xam ne lu mënta nekk it kenn du ko santaane parce que nañ ñaar dina bu ànd maanaam sant nit ki lu mu man mu bañ ko dana yàqub ànd waaye santaane lees mënut tamit dana yàqub ànd kon yàlla nañu yàlla dimbali ba yooyu yëpp bañ cee am maanaam la ñuy santaane muy nekk lu ñu mën a def la nga waaw la mënta nekk ñu bañ koy santaane loolu dinay am solo trop trop bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi di sunu làmb ñëw na ci mbirum ki nga xam ne wala boog ñaar ñoo xam ne ay wujju lañ ci làmb muy Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo roi des arènes mel ni ñaar ñooñu nag yëglikaay bi ne ah seen i mbir nar naat seen ab daje jeexagut ci ni mu ko gisee parce que roi ba mu nga parcelle moo doo ko yor bëri na ñaari yoon Balla daan te bi ci des mooy Balla roi bi la bëgg a jëlaat moom te mbir maa nga géejawaay kon nag li am ba des daal mooy ah kon xëy na bu fekkee ne roi bi dafa continuer di ne foofa moom ah pour Balla jot ca faw mu dajawaat ak Modou ñetteelu yoon loolu du mën a ñàkk bu dee loolu la bëgg te xam naa it ku ne xam na ne Balla gay tey bëgg na dégg roi des arènes ñaari yoon ci carrière am parce que nekkoon na ko ci kaw Yaxya Jóob Yékini la ko jëlee woon muy diggante boo xam ne ku jéeg làmb la c'est des ñoom ñaar ay adversaire lañu ci làmb boo xoolee seen adversité boobu am na lu bëri lu mu leen may ci làmb muy Balla Gaye numéro dëkk a ko moom la dundal te itam loolu dafa baax su sport waaw sport du lu sport de combat doo ko seetlu moom il faut ngay adversité bi di am ba tey bu ñu continuer Eumeu moo xam ne bëri ak ñoom ñaari yoon kii kee daan ko mel ni moom Eumeu Sène moomu nag Lac de bi mu fi toogee at yu bëri daanut ëmmaa ko stopé daane ko mel ni kon nag loolu moo tax yëglikaay bi jàpp ne seen ñetteelu combat bii moom bu loolu mooy gis-gisu yëglikaay bi di suñu lam waaw loolu moom xam naa dina na ko lool Lac de Guiers tamit donte ci ndam la jóge waaye xëy na na mu ko bëggee woon amewu ko na parce que ndam la recours moo ca mujjee pour mu mën a am ndam li ci kaw Boy Niang kon bëgg na bi yoon suy ñëwaat am ndam lu leer nañ ci biirab géew bëgg na itam la ko Eumeu Sène defoon mu fayee ko ndax bul fàtte ne da koo daan dañoo niil benn combat deuxième combat ba Eumeu Sène daan te itam moo tax boobu combat bu nar a metti lay doon te Eumeu itam fi mu nekk nii ah bëgg na nag sove boppam sauver honneur comme ni ko ni ñu koy di waxe ba tey bu demee ci record Leewtoo point lañ fay fekk mooy ñi nga xam ne ni benn association lañ boo xam ne nii daal nañ ñoom défendre lambi simple moo leen tax a jóg te ab daan doon ne ca bopp ba ànd ak ñoom dul fay ak ñooñ ñoom nag seenu naqar la ñu xëy di ko wax foofu ci yëglekaay yooyu parce jàpp nañ ne Matar Ba joxu leen maanaam tuutal te ñoom tuutiwuñu ci biir làmb ndax ay nit lañu ñuy doxal ci làmb ji leen te dañ caa bokk kon jàpp nañu ba muy dalal ma leen na leen a dalal defu ko nag ne nañ ba pare jël koo xam ne ñoom ne nañ gënalu leen ànduñoo moom mu tegal leen ko fa ne mooy jiite lit simple bi muy màng de ñoom jàpp nañ yooyu yëpp duñ ko bàyyi mu jàll lu mu jar danañ ko def ba mbir ma du jàll loolu nag ñoom gis-gis booba la ñu am ñun nag bu ñamee luñ lu wax mooy daal que ni fi mu nekk nii moom waa lit simple lit avec frappe ak ñun ñëpp ku ci ne tey ci mbir mi ci nga bokk wolof nag neen ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi xëy na nag mataar ba mën na am daf leen a fàtte loolu laay gën a mën a jàpp wala bokk mais tuutal moom du ma ko foog parce que lutte simple ku ne xam na tay li muy ni mu doxee ak ni ko amateur lutte simple yi doxee ak lafa am ci wàllum euh, euh, maanaam animation woy ak bëreek cosaan defe naa lutte avec frappe sa doo fa gis loolu ak discipline ba fa am ndax lutte simple ngay teg ay millions bu la neex sa police mën na fa bañ ne te doo fa gis ku xeex wala ku def nangam te loolu li ko waral mooy ñit ñoom amateuru lutte simple ya ñoom ñoo amee boobu discipline kon defe naa ñooñ kenn mën wax lamb ci réew mi génne leen ci loolu c'est impossible du jàppit ne Matar Ba xëy na daf leen ci bëgg a génne du ma jàpp loolu noonu a ne a sëb la la ko bënd nga ca biir ñoom ñoo xam loolu ñun mënuñu kaa xam bi ci des mooy record ba tey ñëw na ci mbir moomu ak itam koo xam ne ni mooy rëg-rëg ak jàpp na ne ñi ñu fi teg ñuy bees moom rëg daa jàpp ne sañu ñoo def lu jës li fi Alioune def maanaam ñoom lu fi Alioune Sarr bu fi Alioune Sarr defoon benn ñoom dinañ fexe ba def fi ñett maanaam doublé ko doublé waat ko et waaw loolu rëg-rëg wax tamit moom la Sénégalais yi di xaar ci ñoom wax dëgg yàlla comme yéen la ñu dénkaat Alioune Sarr dem na ah yàlla na ngeen def lu ëpp la mu daan def ñun loolu lañ leen di ñaanal parce que tamit bu amee rek muy ndamu Sénégal et puis di ndamu làmb wala képp ku bëgg a làmb di wax que ni daal <clears throat> loolu moo fi ñëwoon tey di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax happy birthday to you sama benn rakk boo xam ne suba lay feete anniversaire am ñu koy wax Abdoulaat seen nekk fa nga xam ne moom mooy ca marché ti leen di jaaykatu or di sama xarit ah di doomi bawal laat seen maa ngi koy wax happy birthday to you damay anticiper anniversaire bi yàgg maar suba la sam samedi ji moo tax ma ko koy anticiper tey di le 14 novembre kon laat borom 14 novembre happy birthday yu you dundal lu bare bëri yàlla yokk say xéewal di ko ko souhaiter bu baax a baax di wax ne moom mooy mu ngi ci làmb moom lay dund ni tudd amateur bu mag bokk fa nga xam ne moom mooy groupe baax di nuyu président Massamba Dieye ak ñoom Sora Malick ak ñëpp ñu nekk groupe baax rek laay du fàtte kenn suñu soxna yi ci biir groupe bi ñoom Marème xam nga ñoom ñoom ñëpp daal ñoom ñëpp ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñoom Marème Ndione jay na ba Ndione ñoom tam maa di nuyu taalibi sëñ Babacar si yooyu nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV ak foo a nekk rek di ñaan jàmm Sénégal di ko ñaan si àddina mais di nuyu koo xam ne tamit mm, armée sénégalaise la ne ñu bokk dëkk chaque jour ma gis ni may soutenir ak ni may ñaanale muy njoogu taal dëkk ca ndondol di rakku suma papa Mbaye Tall nekk mécanicien nekk fii ci RTS kon Ndiogou taal maa ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal mucc ak xéwal di ko ñaanal tamit waa commune Ndondol yëpp ndax gis naa ni ngeen may soutenir di wax ko ne encore une fois doomu la doomu ak yaay la tey ba suba rek maa ngi ci seen ginnaaw su baaxee rek yéen la waaye jàpp leen ne su bonee rek man maa def sama yëfi bopp waaye wax dëgg yàlla li ngeen war a def ci man yéen ko ciy def ci ñaanal ma ak ci jàppale ma ak di ma jox xel kon Ndiogou ma fàtte le maire de la commune de Ndondol sama xarit maître Pape Sène président comité sénégalais des droits de l'homme di ko wax ne moom moom yàlla na jàmmam yàgg moom tamit yàgg maar yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na ñëpp am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa